waaw lu may ñaax askan bi rek pour ñi mun a di toppoo euh, euh, mooy kër euh, docteur lu mu ñu sant ñi respecté ko toog bañ a génn ñi bañ a génn bañ a voyager tamit respecté kaddu président loolu rek moo mooy tax parce que frontière comme ni nga ko waxee soo demee Kaxeen frontière Gambie la boo demee Payar tamit frontière Ranérou la kon yooyu yëpp maa ngi ñaan askan département ñu wàññi voyage yi ñuy toog ñuy respecté une condition yu nga xam président joxe naa ko ak médecin yi. di remercier encore gouverneur région Tamba bi si liggéey bu nga xamante ne wax dëgg yàlla mu ngi koy taxaw si région bi ndaxte vraiment depuis affaire bi taxaw ba léegi noppalekuwul mu ngi wax ak nit yi mu ngi wax ak askan yi vraiment di leen jàppale pour aar nit yi mun a aaru si feebar bi. kon loolu yow boo ko calculer mu ngi dem si cinq millions kon ñun conseil départemental bu Koupentoum euh, desuñu gannaaw pour appuyer askanu département bi. si ngir feebar bi mucc fii mucc si Sénégal mucc si àdduna